jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen euh, émission boobu nga xam moom lañ defoon ak euh, Sidna Alioune ci borom bonekaare bi Seydi Aboubacar Sy euh, waaye nag tey dañuy waxtaan ci ñaan Seydina Alioune man ak yow dañu def émission. Mhm. par hasard ba nga demee ba ca fin ba nga maye luy faj jabet. Mhm. addina bi Amérique Australie fu ne ci addina nit woo ma fa ñii li leen jaaxal mooy joxe nga notice bi. mais selon notice bi nan lañ koy utiliser moo nekkoon seen problème ak ñaata jour lañ koy naan ak naka lañ ko war a defee ak ñoo xamante ni dañ may woo di ma wax yeneen i feebar parce que dañu dégg ci biir ñu ni leen Seydina Ali amul benn feebar bu dal nit Seydina Ali du ko faj ci wàllu paj nan la la ñëwee ak yan façon feebar nga xam ne Seydina Ali mën na ko faj. waaw li fekk yàllaa ngi doon yàlla. nguuram gi dara manqué wu li fekk seexul Xaaji Malick mu ngi doon xalifa yonent bi daara ji dara manqué wu fi li fekk Cheikh Sidi Aboubacar si mu ngi nekk xalifa Cheikh Tidiane lépp lu ñu waay wax bu ñu xoolee li ko mag ñi daan defee faj la ba nga wér. gis nga daara ji feebar yëpp. amul xanaa opéré maanaam mooy yàlla ak tasug mbokk ak buddi bëñ laa dul def ci daara ji. ak opération ak opération. loolu rek laa dul def ci daara ji. tubaab yi bu ne kii dootu wér. man kooku laa soxla awma soxla ci ñi am ay bopp yu metti ne ki tubaab yi ni kii dootu wér lii ko dal du wér man kooku laa bëgg ñu indil ma ko ma faj ko ba mu wér mu delluwaat yàggul dara ci jabet gii am na ci benn xale Barcelone la nekk mbuur gii la dëkk bi muy dugg ci senegal dañ ko tapp ay pion fu muy pikiroo bi muy dellu lépp la ñu dindi pikirootu pion yi amul lenn loo xamante ni si nii des na fa ci wàllu jabet gis nga bu fekkente ni si nii da nga am trace man nga jël sunguf bi rek am naa benn sunguf bu may defar bu yéeme <laughs> sunguf bi boo koy jël balaa sase bee jeex yow da ngay manqué suukar balaa sase bee jeex yow yow da ngay manqué suukar yow moom ñii am suukar yow bokkoo ci yow da nga manqué bu gaaw a wàcc suukar la bu gaaw moo xam sa suukar day yéeg moo xam sa suukar day wàcc yamu ci ci sa dund doo am tànk yu metti doo am arthrose doo am nerf sciatique doo am rhumatisme te sunguf boobu koy sunguf boobu parce que léegi nii rek maa ngi gis benn waay bu envoyé benn message li ma ci am waay bu wax bu envoyé benn message ni moom musul yaakaar ci àddina ni lii am na nit ku ko mën parce que moom dem na foo ne ci àddina ngir tànkam yooyu mais bi mu commencé utiliser sunguf si la la la la tàqali ko bu dee sunguf si li ma ci gën a neex mooy koo xam ne nee nañ kii mënatula dox <laughs> kooku ma faj ko ba mu gis nga jabet bi balaa moo nebedaay la persi ak karasool ñetti yooyu moo taxawoon waaye benn bi moo manqué woon ndeke warga la woon warga waaw gis nga boo cofee nii sa loxo ne mm-hmm. def ci cofaat sa loxo ci karasool bi def ci mm-hmm. cofaat sa loxo ci persi bi def ci xam nga loolu lu yam la mm-hmm. mën nga ci def ñetti kaas mën nga ci def ñaari kaas ndox waaw ñetti kaas yi mooy kii pikiiru mooy naan bu subaa bu bëccëgee ak bu guddee ñaari kaas yi mooy ki pikiiruwul li ci gën mooy chaque jour nga baxal ko ba kere ngay tàqaliko feebar bi loolu moo ci gën mm-hmm. waaye nag warga wi toujours da ngay cof rek def ci benn paquet bi mën nga koo def ci lu mat juróomi baxal wala juróom benni baxal mbaa juróom-ñaari baxal waaye suba ak ngoon danga koy utilise nga tàqalikook moom lii ma la wax boo ko defee bu nee da nga dafa dafa amoon nga ak moom 40 ans léegi nga tàqalikoo ak moom mais est ce que nag ko defee ba pare amul secret boo xam Seydina alin am na ko ci boo xamante ni maanaam boo amul secret boobu noonu du la faj waaw secret bi moom benn rek la mooy fatiha salaatu fatiha Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg jeex na <laughs> amul beneen nan lan mooy secret bi loolu dog xam nga sunu borom subhanahu wa taala nguuram gi dara manqué wu ci lii ma lay wax it bala moo a neex ñu ñëw daara ja toog ci àll bi nga xamante si ni kii caméra day moytu yenn saa yi bu ko bu jànnee fër mu daw xaw a moytu ma man laa wax ne la garab gii lii la garab gii lii la garab gi lii la maanaam bépp maladie laa la wax tey jii bu ni la woon kii amul mën niyu mën naa ni ko bu mu dem fenn na toog woo ma impuissance sexuelle dañ ci liggéey laay laay la la gis nga gis nga ñaar yi ma tiitaru ci bànneexu ci ah, ndax Tiwaawan laa dëkk nag hmm. bu dara bu dul dara man Serigne Aline Niang lañ ma tuddee kenn jàngalu ma man Tiwaawan laa jànge docteur bi wax yow benn nuñ koy waxeeti ni fi ñuy di fa eh, eh, carrière docteur yi. laboratoire laboratoire yi. Mm. laboratoire Alaaji Malick lay génne. lu ma la wax kenn du ko dindi. gis nga ndey jàngoro yépp muy siti mm. awma ci ndend ci dendu asamaan bi la juróomi takk bu ma la ko joxee nga maasaloo yow sa jëm bopp. indil ma ko ay cëram dagg ñu ne kii kat comme ku gaana juróomi takk yi bu ko weesoo ca gisu ci résultat na ñëw wax ma ko ma ñëw ba fii ci raw du sëñ Babacar teg fi sama kuru dem Popenguine tudd Jean sant Paul te it bu boobaa punkal lay doon ci catholique yi. juróomi takkin. siti laa la wax xaw ma ku ma ci sut. parce que takk yi li koy composé yaa koy def maa koy maa koy def. yaa koy composé. góor gu baax. gu dëkkoon fii ci réew mi moom ma ko joxoon. àndoon ak sama baay ànd bu rafet mu yëkkati téere bi maanaam téere faj la ma jox. te boobu rek dañu ma toogal ci daara ji ma ne ko duma toog damay jàngi ndax xam-xam laa bëgg mu ne ma jàng am na lu ko gën ma ne ko papa jàng dara gënu ko mu ne ma defaru ko gën te nit la defaru moo gën jàng wallaay barke ma toog fi ma toog mu ne ma isil jikasil isil fii ma puus yi mu ma defaru sax am na lu ko gën ma ni tekk di ko xool mu ne ma jubóog sa borom moo ko gën boo àndeeg sa baay am kilifa jubook sa borom la moo waral Serigne Seydina Alioune bu Serigne Paate bu Serigne Babacar si ba ke damay dugg bàmmeel damay am kilifa guy dund ndax bu dee ci wàllu yàlla moom moo ma dimbali. waaw question boobu dinaa ko moom laay tëjee. Mhm. bu dee question Serigne Pathé bi maa ngi la koy wax bi nga nee cëpp dama la tey sama première question mooy Serigne Alioune bu Serigne paate bu Serigne Babacar Sy moom laay tëjee mais mhm. dañu ñamoon ci wax nga ci wax nga wax nga ci ndoxum siti waaw nit ñi dégg nañ ko. mais da nga da nga laal impuissance sexuelle. waaw ma wax la nii. Mhm. la ma wax ci bee lu ko raw laa waxaat ci bi. mooy bu fekkente ni si ni nit ki awraam mënatul a jóg bu fekkente ni si ni nit ki awraam day gaaw a delloo bu fekkente ni si ni nit ki awraam day gaaw a da maanaam day gaaw a yegg bu fekkente ni si ni nit ki mënatul a sëy lu bari bu fekkente ni si nii nit ki mënatul a yëg boppam am naa benn biteel boo xamante ni si nii defar nañ ko ba pare maa ngi ko tuddee xam sa bopp boo bëggee xam sa bopp rek mus ko mais seen àdduna est-ce que Tivaouane am nga fi am nga fi am nga fi pharmacie déedéet wutuma pharmacie nag daara ji moo tax te damay bañ tubaabeel ko non boo déggee pharmacie mhm. mooy maanaam Tiwaawan nga dëkk Tiwaawan laa dëkk par lundi mardi mercredi dama fi faral di nekk moo tax ah, dama am ñeenti daara mhm. ñeenti daara yëpp ñeenti soxnaa fa ne mhm. tous les jeudis vendredi samedi dimanche daara ju mag ji laay nekk buxu par lundi mardi mercredi laay jox yeneen daara yi bu ma ñëwee lënd bii di ñëw di la 14 octobre Tivaouane laay nekk lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimaas ma dellu daara ja beneen lundi bi ki des jaxaay laay nekk lënd bi bu dellu mbaaw laay nekkaat man noonu laa tërale sama àdduna moo tax ñu bari dañ may imp ay kilifa dañ may seet si di ma wax ni ma ubbil pharmacie man leen déedéet ndax bëggumaa joteeg buur bu fekkonte ni si ni buur nangu na taxaw fi mu taxaw ni ma lii ubbi ko pharmacie la ma xam ni senegal gépp dañoo taxaw ni naa ko ubbi maladie chronique yi danaa defar seeni biteel te it bu nangoo am naa mbaaxu ndax man njabootu alaaj Malick laa dara dérangé wu ma mhm. mooy am naa mbaaxu toog ni leen lii mooy faj lii lii mooy faj lii defar leen ko siro wala ngeen def ko ay comprimé ngeen teg ko ci seen pharmacie yi man damay jàngale ji faj looloo gën a tuuti li ma ci gën a est-ce que xam nga ne impuissance sexuelle actuellement dafa toj réew mi parce que boo yu ndaw la ngay gis ay des gosses de 30 ans des gosses de 25 ans impuissance sexuelle dab leen ndax po mu bari. xanaa xamoo ni mën naa bañ a nekk po hmm. lu ci bari. waaw du nekk pode de àndaale bu fiir lay doon. ah rab lay nekk. waaw am na ñoo xam lu ñu yaakaar mu tas. lu ñuy liggéenti mu taggatémbe ku nekkal wax ju sew yàq seen diggante lépp luñ dugg buñ demee ba yaakaar ni lii war nañ caa am ndam loolu day dellu ginnaaw ñii dañuy dem bay gént sax di sëy ak moom kooku sexuel sexe am mënul continuer faw day tàqalikook lii rek lu ko moy lii day dal da koy daal di arrivé am na ci nag ñoo xamante si ni rab moo leen di foloo ñuy fo fowe seen bopp loolu rab daf koy def day dal góor day dal jigéen day dal jigéen te ci jigéen sax la ëpp ndax jigéen mën na ko téye ba du am doom mën na ko téye ba ku ko takk wàcc ko mbaa mu dee laa ilaha illallah mën naa téye góor ba dootu am dara lu mu am jaay ko mën naa téye nit ba dootu gëm sëriñ ndax danaan fu ne dem naa fa waaye gisuma dara li rab di def rab mooy seytaane bu jalousie rek seytaane bu fiir ci sa ci doomu aadama song la ngir yàqal la rek moo ko tax a jóg leneen taxu koo jóg mooy perturber sa dund moo ko tax a jóg ca bari na ci jigéen ñoo xam dañuy dem sax ba am doom bu leen yàlla dimbalee seen liggéeyu ndey waaye doom ja duñ déggoog ñoom day am du ñu déggook moom loolu seytaane daf koy def wax naa li loolu moo gën a ndaw ci li may faj man bala maa am lu ma neex dëgg ñu ni diw dof na lu ma fukki at wala ñaar fukki at ñu indi ko ma faj ko ba mu wér man ci yooyu laa ne nit ku taqalikoo sawum Seydina Ali ndëj liggéey complètement dof dof dof complètement dof bu toppooral tubaab bi ni mënuñ dara ma faj ko ba mu wér man ci loolu laa nekk koo xamante ni nee na mënta wax mënta wax mënta wax ma jàngal ko ma wàcc alxuraan <laughs> ma loolu ci loolu laa rek ku mënta wax mooy lan. nga nga xale boo xam ne dañ ni mënta wax nga indi ko ci daara ji jàngal ko ba mu wàcc alxuraan <laughs> loolu ci loolu lañ nekk. ku nu liggéey des fois da ngay gis koo xam day nekk ci place place bi dëgër mu wóor ko wóoral yàlla ni parce que barki démb rek am na ko ma ciy waxal. Euh, maak Serigne sax sama caméraman bi ñoo ànd. Mm-hmm. parce que damay ñëw bu ma ko xoolee dama koy gis mu mel ni dafa jaxasoo. ba benn bis mu dégg may wax ak benn waay ci téléphone mu jël ma ci biti ni ma place bi daal mu ngi dox may dafa mel ni dañ koo yàq ni ma bi ci des damay jékki-jékki jaxasoo mel ni ko ab absenté waaw kooku nag dañ koy defal listixaar ndaxit mën naa bañ a nekk liggéey loolu seytaane daf koy def néew na junniy nit yu nu indi ci man walla junniy nit yu ñëw ci man mën naa ni bu fekkee am na ca kenn ku loxo def dara du mat cinq personnes wala six person ñu ci ëpp rab moo leen di def lool liggéey nit yombul de yenn saa yi nga indi féticheur yàggul dara sax def naa ko gis naa ñu indi fi ay féticheur jox leen ay nag ak ay xar ak ay yooy li koy demine yàggul dara benn ismilal enzam la rek boo ko waxee ñu lisewul dañuy dee waaye nit ki yenn saa nag ci biir biiri mbokkam lañ koy yàq ci biiri bokkam waaw ndax am na ku ni woon sa ndey du fi tekkee dara hmm. nga ñëw bëgg a tekki dara mu gàllankoor la ndax wax ba mu waxoon la bëgg ndax wax ba mu waxoon la ko bëgg lu bëgg a dëggal am na koo xamante ni si nii sa xaritub bàyyi la woon ñàkkante woon na ak moom bëggul doomam gën doom sa doom maanaam yow sa doom gën doomam hmm. mu gis sa doom commencé tekki dara mu dem ci sëriñ gàllankoor ko sëriñ ba moo ñàkk fayda lor doomi jàmbur ñu jox la xaalis nga tëdd ak sa doom ak sa jabar allah boo ci reeree ba regg boo tëddee nelaw sa conscience tranquille doo nit yow billaahi dof nga barke yonent <laughs> lor doomi jàmbur tëdd ak sa doom di nelaw lekk ci xaalis bi yow boo tëddee bu dee sa conscience tranquille na yow doo nit allahu akbar man nag bu boobaa awma ci maslaha bu dee luñ la def la duma la ci laaj xalaat duma ci def dara dinaa la dinaa ko dindi bu dee sa mbokk la yow dinga am lu la naqari ndax dama koy delloo fan laa koy def. boo ko sikkee ci gii dama koy delloo man awma maslaxa ci yooyu wax naa ni dem sawara ak dem aljana laa yemale tey jii man boo ma doon xeex ma rey la ak lépp laa man sama néew ci man naa la rey nga dem nga dem nga dem sawara wala ma dem sawara rek ñaar yooyu moo ci mën a am danga ma bëggoon a toroxal ma toroxal la tey bu ma doon xeex ak yow bala ma laa wax dara damay fexe ba jaxase sa mbokk yëpp ni la maa ngi ñëw nag wala ni maa ngi ñëw sawara dawal wuti ku la dimbali maa ngi ñëw te bu ma lay xeex dama lay tàggu dama lay woo ni la pareel maa ngi ñëw maa ngi ci sa kaw ndax éliminer naa ñi nga yaakaaroon ñëpp kon du ma la bàyyi damay ñëw ci yow moo tax xeex yomb ma ndax man bu may xeex du ma taxaw. jërëjëf Serigne Mbouck dama ne woon sax dama ciy def émission mais ça fait yaa ngi toog yàllaa la indi dama génn rek sama buntu kër seen benn xale bu jigéen ma xool kanam gi mu trist sama fit wu rëy ma ne ko wóor na ma ne dangaa demoon di tanilu mu reetaan ma ne ko ki ngay tanel maa ko gën a ay jox ma 100 francs ma xoolal la mu génne 100 francs ma génne loxo bi di fo xaw ma dara ba yàgg ma delloo ko 100 francs yi quoi mu waat delloo ma ko insister delloo ma 100 francs ni ma xoolal ma ma téye 100 francs yi ñi ma ñi loon am na ñaari gaa yu ma toogaloon ñu dem ma téye 100 francs yi ni ko ñi nga yaakaar ni dañ laa bañ bañ ni ko sa jëkkër bañula la coow a dikk rek ba yàgg ma ne ko lan mooy sa problème mu ne ma man dama sëy ci kër lu yàgg te awma fa doom sama jëkkër takkal ma wujj wujj wa ñëw fa yàggu fa am doom mhm. ronkañam dal ci dënnam ni ma man ak sama wujj amuñu woon problème bi muy doog a ñëw sama doom nday la woon ma ne ko mu ni ma mais sama ay njëkki ak sama ay goro dañoo hmm. dugg ci biir jaxaseñu ba léegi sama jëkkër day aaye ci man sax toog ba yàgg génn sama néeg dem ci sama néeg wujj bu ma ko waxee mu ne ma damay naxi sama doom ni ma sama sama wujj bu ma jëlee doomam sax mu nangu ko jooy jooy yu metti ma ànd ak moom di jooy ndax ndax affaire bi dafa maa metti jarul muy jooy billaahi wallaahi wa taala ma jox ko sama numéro mhm. ni ko wooma mhm. xaw ma dara de wal aadiyaat dabb xan laa yem ci jàngum alxuraan <laughs> non wallaahi alazim li ma lay wax nii mhm. démb la ci ay vers quatorze heures suñu waxtaanu tey xam nga yàlla dogal tey ñu envoyé message whatsapp rek man la foo nga ni ma yaa ngi taan man la jaar fi xëy na yàlla bëgg jaarale loolu ñu gise tey am naa ñetti yoon benn bi nag yonent bi lay tudd muy góor muy jigéen yonent bi lañ koy tudd benn bi gi des ku la neex nga koy tudd benn bi gi moom it ku la koy tudde bu njëkkoon nag moom dama lay wax bii muy góor muy jigéen man nga koy tudde muy góor muy jigéen mën nga koy tudde defal naa ko ñu dul ay jullit ki ma ko njëkk defal du jullit ñaari doom la am góor ak jigéen ñu tudde defal naa ko nit yàggul dara actuellement nii wasinagul defal naa ko it sama ñaari soxna sama ñetti soxna defal naa leen kenn ki am naa man ñaari doom kenn ki damay ragal ni ñu ngi ci yoon bu ñëwee lundi wala mardi danaa ko jox incha allah. ma indi ko fa lundi wala mardi. 22000 rek laa ko laaj 22000. 22000 francs. Ah. incha allahu rabbi bu ñëwee maay jox parce que sama numéro laa ko jox ni ko woo ma woowagu ma nag. bu yàlla defee ni dinañ juboo dina ma woo su ma woowee 22000 yi maa ko génne sama poche joxe gis nga taxawaay fi ma ciy teg mooy. Mhm. Alioune dama bëgg góor ñi. Mhm. ñu yërëm jigéen ñi. parce que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum sa Serigne ba dafa waxoon ni doom bokkul ci sëy bénéfice la ci nag. kon góor ñi nañu comprendre ni. jigéen yàlla dina la booleek moom te du dogal doom sa diggante yaak moom di nga gis ku sëyëg nit fukki at ñu dàqali ko mu sëyëg keneen am fa doom mm. kon góor ñi nañu yërëm jigéen ñi parce que di sëy ci kër sa amoo fa doom stress boobu rek dafa doy sëkk ñu bëgg cee boole di la wax ay doo am doom loolu dafa metti si dina luy nit dina toog ci kër fukki at du am doom génn dajeeg nit bëgganteeg moom laataa ma koy takk mu am moom doom laataa ma koy takk mu moom doom yenn saa yi ñàkk doom ci ku góor ki lay nekk yenn saa yi ñàkk doom ci ku gu ci ku jigéen ki lay nekk yenn saa yi ñàkk doom du nekk ci ku góor ki du ko nekk ci ku jigéen ki ci coobare yàlla la xanaa xamoo ne alaaji dem marché sax bokkul ci sëy ah déedéet am doom nàmpal ko bokkul ci sëy yenn saa yi nga takk jabar indi ko ci biir kër gi sa yaay ci boppam di wujjeeg moom sa yaay ji la jur waroo ko jox dépense sa papa moo ko daan jox dépense hmm. ki nga takk indi ko ci kër gi nga war a jox dépense bu dee dépense weer nag na nekk ndeyam na ko dem dénk ko ndax fa lay gën a sakkane bis bu nekk mu jox ko mu dem togg hmm. yenn saa yi nga takk jabar indi ko ci biir kër gi say rakk di wujjeeg moom ndax xam nañ ni fanaan gi ngay fanaanook moom yenn saa yi nga dem jëndal ko benn takos wala benn liminaat mu naan hmm. wala benn lisa wala gase nga jox ko ko loolu dañ ko fiire ñoom bokk na ci ñàkk jomuk rakk mooy kër gi yow dëkkoo fi ki dëkk ci kër gi ñibbisi na ci kër gi wutil foo dëkk rakk yu jigéen yi nga bokkal ndey ak dëkkuñu ci kër gi sa yaay juru leen sa papa it ñaari fan ñett nga maye ki nga maye yaa moom. déedéet léegi kin la may nag kooku la nga ko ndax ëllëg mooy donn sa way jur mooy indi it kii donn ci biir kër gi yow ki ngay jur du donn ci kër gi dara ki war a donn ci kër gi nag ki ko war a indi nag yow maslaxa ak moom jàmm ak moom bi ki desit mooy ñuy may suñu jabar yi xaalis dangay génn léegi ci biti nit ñaan la 5000 nga may ko nga dugg ci biir kër gi sa jabar ñaan la 5000 doog ko may foo ko teg ki ngay fanaanool boo génnoon dem ca baar ba di jaay jëndi jigéen do dangay ngay jëndi jigéen da ngay fay ngir mën a am bànneex léegi ki ngay bànneexul ci biir kër gi mënoo ci moom dara loolu it dafay jee ci biir kër yi bari na jigéen ñoo xamante ne si nii buñ génnee seen yar seen bët yi dafay neewi dara mayu ko mooy nelawun bi dañuy fanaanee liggéey ba bërset buñ xëyee fekk goro bu tàng jër ci biir bu fekkoon ku ñëw ci kër ñu xatal la kenn du fa am doom boo amee jabar mu am doom waru koo nàmpal dangaa war a dem fay ñu nàmpal ko sa jabar warul dem marché yow mii ku góor ki yaa war a dem duggi marché loolu mooy diina mooy ngor jërë ngeen jëf kon nag fi ñuy tëjee ci ban ci ban jàngoro la nga nga bëgg ñu tëjee fa ban jàngoro xanaa ma may leen siburu ndax ci nawet lañ ne waaw siburu waaw siburu kum rey say mbokk dañoo taxawul siburu lii may wax it yi nañ arrêté li ñuy def lépp def ko amul benn malade buy bu siburu di rey ren dégguma ko de ma ne lii may wax ni docteur yi nañ arrêté mbooleem lu ñuy faje siburu ndax dañuy faj muy metti lii dee ci siburu moo ëpp li daan dee ci affaire yi corona yi wutil ngeer xobi ngol lañ bisaab bu xong ak mbante mbaare boo gisee kenn ku yaramam tàng nga baxal ko mu ciy naan di ci sangu ñetti fan bu ko weesoo ñëwal ma delloo sëñ Babacar Kourousa. ngeer. ngeer xobi ngolloñ. ngolloñ mbante bisaab bu xonq ak maladie bu la mën a dal sa yaram tàng yow jëfandikoo ko sibbiru moom yow mucc nga ci. ñetti fan yi ñaari fan da nga yëg ni yow wér nga ñetteelu fan bi doo fekk dara. dosage bi koy def waaye nag ku ëmb du ko naan. bu dee da ngaa dem jënd bu nekk benn si xam nga tey bu dee ngeer dañ koy takk yenn saay. waaw mën nga koo jël noonu. takk bi bu dee ngolloñ mën ngaa jël mbuus mi bu dee bisaab bu xonq nga jënd cent bu dee mbante nga dem jënd takk bi noonu hmm. ut cin lu mag sóob ko ci baxal ko ba mu bax nga teg nee nga segg ko nag hmm. boo xëyee naan sangu bu ngoonee nga naan sangu looy naan dangay naan lu tolloo kaas bu ndaw rek bu hmm. dee jigéen góor xale bu ndaw kaasu attaaya bu dee mag kaasu ndékki bu dee ku ëmb nag du ko naan daf koy sangoo rek daf koy sangoo kese mbante maa tax bu dee ko ëmb du ko naan ndax dafay yàq dafay yàq muy def waaw est lii mooy faj siburu mbokk yi jërë ngeen jëf Seydina Ali ngi noonu am na yeneen nag yu des dafa amul temps ndax oto baa ngi nii mu gaare day ñibbi njaboot gaa ngi nii mu àndal <laughs> ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Seydina Alioune ndax benn as ndaw daf maa woo ni ma Seydina Alioune laa soxla ma ni ko jëlal numéro mu jël mu ne ma dama lay ko la ndox TV ma ne ko waaw mu ne ma dama lay yóbbante ci moom ma ne ko waaw mu ma waxal ma ko ni ko daf doyoo ma ko sax pour mu faj ma mais waxal ma ko ni ko dafay namm sama pas-pas ci sëñ Babacar Si su koy déglu. ma wax ko ni ko su ma koy déglu sama cofeel ci sëriñ kër Si day yokk kon man dama ni man aw droit fu ma dajeeg yow te laajuma la question ci sëñ kër Si waaw ndax am na jaami yàlla yoo xam li ngay wax ci baaba kër Si day dugg ci seen xol yi. kon yàlla yàlla guddal sa fanta may la wér waaw sa baay Tiwaawan ci jaamu yàlla rek lañ ko xam mujj gi dañuy wax naan borom yëre yu weex yi <laughs> ndax mujj dundam yére bu weex rek lay sol yore kaam waaw sikkim ba weex tal looloo ko waraloon muy fréquenté Maodo Touré ndax moment boobu yàlla rekk ko saf sa yaay di nit ku baax damay wax ni surtout Babacar Diop njaxeer yi de ci suuf sa yaay ci gën a yaru moo tax boo nee sa baay maa la gën maa maa la maa la gën nday maa la gën sëriñ mu ni dun ba yàgg nii la wax nga dëgg ndax natt na sëriñ Alioune ba xam ko natt na sa yaay ba xam ni ku baax la la wutal kon yow it maa ngi lay ñaanal fa nga jëm yàlla nga fa yegg ndax fa nga jëm boo fa yeggee sagu tariixa bi nga saru sagu kër gi nga ndax yaa ngi nii amoo jot ndax yaa ngi ci programme bi soxna kalambay yu neexmat yi boo jugee fii ba jaar kër gi géréw nga jëm te lépp xadar bee ko laaj kon yàlla yàlla guddal sa fan tamay la wér waaw di sant bu baax nag nga xamante ni mooy Pape Kayre bi ma boole woon ak moom ma boole woon ak yow boolewuñu sax ndax sama jarbaat nga ni ma mel ak yow li euh, ma bokk ak yow bokk ko yow waaye moom mën naa ni sama relation man ak yow bu rataxee ci moom la jaar kon vraiment maa ngi koy remercier bu baax di ko sant sama rakk la ju sës ci man rek vraiment ju baax kon la ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal sa fan tamay la yi mooy da ngeen damay ànd ak moom caméraman bi dama koy wutal ay bot yoo xamante ni du ragal dara lu ko mat ñu dugg ci àll bi. boo fay ñëw nag ngir seet si sa bopp. doo dajeeg dara lu lay luy ragloo ko xibaar. mën nañu solay carax boo doon ñëw ngir ruube. waaw maa ngi giñ ci Cheikhul Khalifa doo ndax bi ma koy sanc ci xeex laa ko sanc moo tax ma miine ko seetuma ci dara aw ma lenn lu ciy seet boo fay ñëw ngir jàmm doo dajeeg dara. boo seenoon jaan demal du la def dara waaye boo fa doon ñëw ngir ruube moom doo yegg si la naa la bu baax <laughs> Seydina Alioune eh? bu sëriñ Paate bu sëriñ Babacar Si lan moo ko indi waaw li ko indi dama nekk Gàmbi di liggéeyal xadara bi sama kilifa génn àdduna ma war a am nag kilifa bi may xam sëñ Paate maa ngi faj nit ñaa ngi dof ma leen di faj waaye mën xaw ma dara mooy tekkiwuma boobu tekki nag du wàllu am xaalis wala am oto wala dëkk ci kër gu rafet mooy cel càllale yi tënk yi la tënk sa diggante ak sa boroom ba nga jubook moom ba ñëpp ràññee la faw nga am yoon woo xam ne da ngay daje kilifa mu dimbali la ci wàllu yàlla ndax yenn saa yi di nga gis koo xamante si ni dana am naaxu talsam maanaam ismilaal azam di ci am naax waaye doo xam ban nan lay doxee kii yan puno nga ci war a def mu mën a dox kii wan fas maanaam doo xam benn kot bu ko mën a décoder ma tëdd ba guddi moom Serigne Babacar moom ma woon sëñ Paate xaw ma ku ko gën a bëgg Seexul Xaaj Maalik xaw ko sëñ Paate gis nga bu toogee di waxtaan ci kër si man suur ak foo mën a nekk yow sa cofeel day gën a yokk ci moom am na yeneen yoo xamante ni si ni sax rus nañ ko wax Serigne Pathé dafa woon ginnaaw mboolem luy deret songu alaaj malik waaye nag téye sëñ Babacar ñeent ñi mu am ñëpp sëñ Babacar leen tudde waaw ku mujj gi maar demoon naa kenn tudde Mouhamad Lamine kenn ca Mouhamad lamin jooju leer na ma ni ñi ci jàpp bari nañ de ndax moom si moom dafa tàmbalee ci sëñ Babacar yem ci sañ Babacar waaye bi nu ñëwee it tëjaluñu bunt mm. ma jox ko sama kurus ni ko sëriñ Babacar si moo ñu waaye wàllu yàlla moom ki ko dimbali Serigne Babacar moo ko dimbali. est-ce que. ijaaza bi mu ma jox bàyyi xalifa bajaan la ko Serigne Babacar si jox mu tëdd mu ni ko xalifa joxal ijaaza bi Serigne Pathé Serigne Pathé yëkkati ijaaza boobu teg ci sama loxo. ma ni nag pourquoi ñu naan naa Alioune bu sëñ Babacar déedéet sëñ Pathé bu sëñ Babacar damay tafu ci sëñ Pathé sëñ Pathé tafu ci sëñ Babacar. ndax bu ma tooñee nga mën a xam ni am naa kilifa nga dem boole ak sama kilifa ah. waaye tey bu fekkente ni si ni dama resté rek ci koo xamante ni si nii moo nga barsax bu ma defee jóola ngoone doo xam koo may boole tey sëñ paate bu tooñee boo ñëwee ci xalif général de Tidiane bu ko woowee day dawee dëkkam ba fii sukk ci kanamam billaahi nga xam ne am na kilifa est-ce loolu mooy mooy kilifa kilifteef maanaam man dama bëgg kilifteef ba man tënkuwuma ci loolu maanaam tey jii nii même bu yow mii ci xadara bi li nga doon sama nijaay taxul de waaye yow nga njëkk ma jël salaatul fatiha rek nekk Tiwaawan fii man si daxaaj maa ngi laa lay sama kilifa nga ndax yëg naa ne ndeke mbir yi dum jàng nag am kilifa ci la mbir yi ci la bokk da ngay gis ku jàng ba ni ar ñëw toog ci Seydina Ali mu leer ma ni kii li mu xam ci li Maodo bind li mu xam ci li ci li yàlla wax li mu xam ci li yonent bi wax kii li mu xam ci li Cheikhu Tidiane wax waaye ak liif mënu ko caa lijjanti man bu samay pexe jeexee du ma faje lu dul xilaas xilaas zëb maa ngi koy giñ ci yàlla boo ma indiloon ku toog ñaar fukki at nelawul ma génne benn bëyit ci du faj ko ba mu wér loolu mooy ndimbal koo xam tubaab yi nee na kii mënatu la nelaw mu toog ay at nelawul lan moo taxoon ma maye ma maye feebaru jabet bi dama dem tëju ji xalwa xale yi am lu ñu ma doon sant ci ñii fi nekk ma dem tëju xalwa ma xam ni ñii fi nekk yàlla barkeel na seen dund ci laa xamee lan moom mottali muy faj jabe loo ci loo war gi wi ñëw ca bis boobu it la ma doon liggéey ci burdu la nekk maanaam nit ki mën naa jeexal téere yi waaye bu amul kilifa du dem am kilifa moo am solo